gendarmerie Wakaam dem na mardi bi dem na mercredi bi mu génn fi nga xamante ni seen sidi bu seen web def li nga xamante ne mooy déclaration wax lu ko neex jeudi bi mu ne dafa feebar te li ñu gis tey jii mooy la 30 la ñu génn li di certificat médical kaana dafa feebar bañ hospitalisé ko Kalifone Sall mi nga xamante ne moom moo wowoon gendarmerie Wakaam moom moo dem gendarmerie Wakaam moom moo ñëw wuy si moom la ñu téye bu leen fàtte ne Adja Thiar dafa wax ne Kalifone Sall da ko yàkkantaan ci biir otom ba résultat yi génn li nga xam te ne mooy kër docteur génne ko ñu fekk ne moom dafa am ndawam maanaam takkewuñ ko laalewuñ ko kii di avocat am ne li nga xamante ne mooy viol dañu koy teg nee mais coup et blessure volontaire la ñuy wax bu leen fàtte ne dafa màcc Kaliphone Kaliphone dóor ko pour mu siggi yàq ay bagage su Kaliphone ki nga xamante ne mooy yaayu Adja Thiaré dóor ko Cheikh Amir Cissé dóor ko tey jii suñu justice réew wan nañu ñun ñii nga xamante ne ñooy xeexal suñu réew kenn duñu may dara

moom moo wuyu ji te il est responsable majeur et responsable aussi lu ko terewul suñu justice suñu réew may ka nga xam ne wala liberté bu jeune mu ñëw wuy see am kumba am ndey kumba amul ndey dañ koo téyewaat may ñu ko liberté provisoire ñu koy ñaaw te di ko naqarlu te tamit naan nag état Sénégal ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci dossier Khalifa Sall bëgg a suuxal Khalifa Sall ça ne passera pas tey nag du ma mën a wax mais suba dinaa woo média yëpp dossier wu Khalifa Sall bëgg koo suxlu te duñ ko nangu tey duñ nangu suba. te jege ñu nekk ci biir APR ñoo xam ne ñu ngi ci dossier bi ñu ngi ci dossier bi te incha allah rab dañ ko fu ñam ne bu suba.